كبر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوي وكالكلي وجسمي لمن لي وجالس والوهبة kon mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci màggalu El Hadji Bara Mbacké ibnu Cheikh Modou Fadal fi ci àll ya ñoo ngi nag fi nga xam ne mooy wi di bërëb bi nga xam ne fi la ñuy waajale bernde yi ni ngeen ko gisee bis bi dañ koy dundal ci jàng alxuraan jàng xasaay julli ci yonent bi istighfar, waaye nak di ziar ziar yi ñu amal ci kanam sëriñ mustapha mi nekk ci bopp njaboot gi ni ngeen ko gisee ñongi fi nak ci wañu xam ngeen na wañu wi lëkkalikoo ci ay daayira ay association ay mbolo yo xam ni seen yitte moy fexe ba ali jëm ci kanam waaye liggéeyal Serigne Fallou liggéeyal Serigne Alaaji bara ñu ngi taxaw nak ak ñom Serigne Daouda Diouf fassiyene wax ci seen kàddu kon jëwriñ ñu ngi lay nuyu di ziar ginnaaw présentation bi liggéey bi naka la taxawé fi a'udhu billahi minash sheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah noo ngi ziar bu baax euh, mbokku bi yëpp mbokku jullit yi mbokku aali yi yëpp ñu ngi leen di ziar euh, ñu ngi ziar bu baax a baax euh, médiation yi ñu ngi ziar almuridiya ci gën kaa rafetu ziar di jaajëfal mboolem personnel bi nga xamante ni bi tey ñoo ànd ak liggéey bi yëpp tey ci ci biir waañ bi. waaw ci biir personnel boobu it ñu xamee ci organisation bu ñuy wax collectif des délégués de Aliya mu composé manam mboolem association yi nga xamante ñu aju ci quartier bu nek a douze quartiers quartier bu nek amna association bo xamante une ñu collectif lolu composé tay wañ bi mo aju ci jigéen ak ñi de organisation bi ni euh Al légui wañ bi lan mo fi activité ak taxawaay organisation bi rek bis bi lan di parce que ñii ñu ngi ci euh, wàllu mbana yi ñii ñu ngi ci wàllu vaisselle bi ci wàllu raxas bool yi ak mbana yi bon ñii ñu ngi ci wàllu li ñuy wax nokkas yeeg yooyu di ko dëbb jigéen ñi ñii ñu ngi féetewoo ci wàllu natt ceeb ak yu demee noonu donc ci organisation lañ ko teg daal ci biir wàññi daal ngir mën a jëkkante ak waxtu wi ci waxtu wi nga xam ne moom lañ ko soxlaa ci ci màggal gi. kon mën nañ ne fii la ñuy waajale mboolem xéewal yi wala lenn ci xéewal yi ngir berndeel gan ñi ci màggal gi. waaw mel na ni nag euh, dafa nekk ñaari waañ Euh, waañ bi gën a mag ci waañ bi mooy waañ bii nga xam ne moo nekk nii ci kër sëñ Alaaji bara waañ boobu euh, collectivité délégué àll yi ci seen association yi ñoom ñoo ko jiitee ci njiitalu ndigalu sëñ Moustapha Alaaji bara ak mboolem kilifa yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci euh, aliya mën ñoo xam kañ lañ tàmbali activités yi ak ban diir la ñuy am ba keroog sëñ bi di leen waaw loolu moom activités yi ñu ngi ko tàmbali depuis démb lañu tàmbalee def aménagement yi tàmbalee installation yi

ndax euh, organisation bi nga xamante ne bii Alieu am na ko depuis deux mille vingt ba tey jii ñu ngi ànd ak organisation boobu moo waral bépp activité boo xamante ne bii dana tukkee ci xalifu bi wala mu tukkee ci chef de village wala mu tukkee ci village euh, euh, maanaam ci quartier yi loolu comité de délégué Alieu dafay engagé loolu directement ci li nga xam ne mooy organisation ba tey. waaw ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant Serigne waaw bu baax a baax. di ñaanal Cheikh Mamadou Lamine Bara suñ borom yokk ay leeram tax ci barkeem waaw comme ni ko jëwriñ ji waxee rek yaakaar naa liggéey bi fii moom mi ngi commencé woon semaine passée ndax fii boo seetee euh, bi nga ñëwee nemeeku ngeen barab bi ni mu seetee tey ñu ñëw ci lëkkaloo woon ñun association yi hmm. ànd ak euh, jëwriñ yu baax yi yëpp association bi nag euh, mi ngi sant ñëpp mu ngi sant góor mu ngi sant jigéen parce que ñun lii suñu yitte rek mooy lépp loo xam ne si ne bëgg-bëggub sëriñ bi la fii ci dëkk bi rawatina fii ci Aliya ñu matal ko di sant yàlla bu baax a di sant jëwriñ yi nga xam ne si ne ñoom ñoo ñu waaw taxawaay bi ci waañ moom mooy fexe ba lépp loo xam ne si ne bés bi laaj na ko rek ñu fexe ba jëmmal bis bi darajaal bis bi mooy wàllum xéewal yi bernde yi ak lépp loo xam ne si ne dafay nuru organisation ba dara du déborde incha allahu taala pare nañ pour taxaw ji loolu noonu ñun ñoo ngi fi depuis sa matin te inshallah dañ fi nekk ba kërëm sëñ bi di ñu yewi mm-hmm. lépp loo xam ne nag mooy waral bés bi taaro wala bés bi rafet pare nañ pour taxaw ci loolu inshallah taala حبولا منه حتى ورث المشبع جعلت كتاب الله عندي وابتقي بتكليمات تشار لي ابا علي لربي دين تكيل يا واني الى خوني اعوذ بي ابا لربي امني ثم شبري بلا انتهاء جل صدري سرخاياتي إسماء لو جل سري بدا أمي وقال لي ولرال ناو جانبي إسماء نجيت بإستلاء من سقفة الهدى